Amadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf discours à la bi njiitu réew mi war a baaxee nation bi ni mu ko baaxoo ci njeextal at mu nekk ci la l'observateur xëy ne lijjanti ubbi yéenekaay bi suba ci samedi ji fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ca la war doon journal bi gis ca ne discours la bu dul yomb ci moom ndax bari na ay lëj-lëj yu am ci réew mi yu ñu ko cee xaar muy lu jëm ci rapportu Cour des bi lëmbi réew mi muy lu jëm ci mbiri candidaturam joxe ci bés ak ci waxtu yu mu war a defee message à la nation moom njiit réew mi di Macky Sall moom la réew mi quotidien xëyee ci xëtamu njëkk ba di ñu xamal ne askan waa ngi koy xaar ci ay ponk yu tàng jër ci discours ranam bi bokk na ci troisième mandat bi bokk na ci njuut njaaj rëy yi waa Cour ne gis nañu ko ci seen rapport bi ci anam yu ñu doon doxalee xaalis bu fond force covid 19 bi ci rapport boobee sax journal Le Quotidien mi ngi ñu ciy wax ay leeral ak di ñëw war na cee toog ak waa société war na cee waxtaan it ak partenaires financiers yi mu di xaalis di ko jàppale Sénégal ñaari fan mu di 48 Vox Populi gis na ne moo dese Ousmane Sonko ak compagnie ngir ñu génne seen kurpañ yi mujj ci at mi journal bi mi ngi laajit ndax organisation société civile gi woteb rassemblement ci place de la nation ngir di jébaane li nekk ci rapport bi seen rassemblement boobee ndax nit ñi danañ leen wuy ji ndax danañu matal mobilisation ba donte sax journal bi mi ngi ñuy wax ne ba léegi ñoom ñu wote rassemblement gi xamaguñu ndax danañ ci am digalam déet ne waxagu leen lu leer ba léegi ci seen demande autorisation ba leneen lu Vox Populi di laaj mooy concert casserole bi waaye yeewi woo askan wi 31 décembre à observateur ndax askan wiñ ciy woo danañ leen ci fekk si am dët ñoom ñu woote concert casserole boobee Mamadou Lamine Massaly mi ngi leen di yàq lu nekk ci journal Le Mandat ak ci journal L'Info wax na leen fa musiba ak mbelengaan Mamadou Lamine Massaly nee na concert casserole bi waaye yeewu askan yu bëgg a def bu njiit réew mi di def message à la nation loolee ñàkk worma la ñàkk respect la jëfi nit ku wayul la nit ku xamul dara scandale doomi doomi kees bi bind a dànkaafu présidentielle bi Maodo Malick Mbaye nee na bu ñu defatub évaluation xool fi ñu jugee ak ci li ñu jugee xool fi ñu toll xam fu ñu jëm mbaa ñu amal ay concertation mu di toog waxtaan ci suñu biir yooyee yëpp bu ñu ko deful mu ne bu ñu ñàkkee nguur gi bu mu ñu bett moom directeur général bu ANAMO borom mouvement gëm sa bopp di Maodo Malick Mbaye journal La Tribune ne nañu démb la ñu ko dalaloon ci rajo Futur Média ci émission bii di RFM matin fa la xam leet ne séminaire bi waa Benno Bokk Yaakaar doon def keroog réglewul jur jàng ji ndax yu bare jaar na fi muy élection locale yi évaluer toog jàngat ko Edson Arantes do Nascimento está morto soleil national moo bind loolee ci xëtamu njëkk footballkatu Brésil ba woon di Pelé moom la xëy di ñu tàgge ba di ñu xamal ne démb ci la faatu ci juróom-ñett fukkeetam ak ñaar record yéenekaay moom it feelu ko bind ne football bi jirim na ndax ñàkk na buuram Pelé faatu na stade yéenekaay nañu pëj bu amoon doole ci histoire football moo nërmeelu démb mu di Pelé woppi cancer ju ko tëraloon Cap Vert ci stade Demba Diop Louis Camara ancien international football mi ngi nittali waa l'Observateur bit bu rëy ba fa pelle dugal keroog keroog askanu ndimbi kox ki ga ca mbir ki laan jombi nañu ubbi l'Observateur seet Cissé mi chef de village yu dëkk ba ak Julde Sow imaamu dëkk ba yéenekaay bi nee nañu ñoo fa doon jàppante raak fa lu rëy ba imaam ba gedd delloo caabi jàkka ja buy di pain de singe l'Observateur nee nañu moo leen boole. Touba Darou Salam Karo Soumari.com Gambrendi